seen jëraay mu tuddee albidaay ngeen koy am guddi aju mu jot waxtu wi jëlu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall doon sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër xaaj Mbàkke ngi ci studio bi toog xaaj Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nu bàyyi la nga nuyonte gooy déglu yi jërëjëf oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu mboolem ñi bàyyi xel si defem seen rajo rawatina seen jotaay bii di albidaaya di ñaan suñu borom mu def suñu nuyo bi mu fekk leen ci jàmm markazuna yunaadi xaaj Mbàkke ñu del siwaat nu jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tërale rek lañ koy tëraleeti am mbégte lool ci ni jotaay bi tëddee tey ñu ubbi rek njëkk laa dégg nga nuyoo auditeurs yi namoon nañ ko ñu ne namoon nañ ko moo tax xaaj bu njëkk bi ñu ko jagleel niñ ko baaxoo defee xibaaru daara ji maanaam xew-xew yi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci ay bis gi ñu nekk ak ay bis gi nga xam ne moom la ñu génn Euh, buñ ci noppee daañu ñëw lenn ci laaj yi nga xam ne moom la ñu mbokk yi yónnee ci email bi di albidayetu arobas yahoo point fr mm-hmm. tombeeg minuit di jot ñu ànd ak waa rédaction bi ci tënkum xibaar yi ci français ak ci wolof dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ci bu dee ñu ne ci biir réew mi ñu nekk bitim réew noonu la ñuy jotaay bi ba une heure jot ba teg fanweeri simili ñu jeexal ko ci xaaj bu njëkk boobu dégtalaat leen tafsiru quranul ak ñoom déglu euh, rijalun xawla rasul buñ noppee ci rijalun xawla rasul ànd ñoom ci arrasidun 5 heures jot ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu ànd ak mbokk yi ci almisbah 6 heures ñu ànd déglu waxtaanu fajar yi tey di alxemes fajaruk àjjuma la waxtaanu fajar yi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boromam subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëdd moroom xaj Mbàkke tabarakallahu ni jotaay bi tëddee nul daan tëddee ni nga koy waxee rek saa su nekk almisbaax ci sër mooy waxtaanu fajar xanaa wax ne am nañu fi gan gu tudd Ibrahima Mbeng dëkk la ci Grand Yoff bokk ci Baye Fall yi Alioune Sall yi xaj Mbàkke gan ngaa ngi noonu defe naa waaw Cheikh Ibrahima Mbeng moom wax nga dëgg ci Baye Fall bokk bokk ci mhm. xale yu jàmbaare yi tey daa ñëw seet si liggéey bi kon ne daa bëgg xam ni al bi daay di tëddee masha Allah ñu ngi koy dalal jàmm bu baax tey dugal nañ ko ci studio nag war nañ ko roqoroqaan yi waaw waaw noonu baax na <laughs> 22 heures moo jot ba teg 45 minutes fii ci studio Sud FM seen rajo. di tàmbali salaamu nii tàmbale ko ci Ousseynou Dieye nekk fële ca géej waaye ñu koy wax Senghor. Oustaz Alhaji Dramé ci Thiès la nekk tàkkowan nekk ci Medina ci Dakar salaamun masaan ak si fi ne daal di walbati ko rek daal di dellu siwaat ci studio bi nekk fekk fi Xaaji Sëriñ Mbàkke si la ne ko Xaaji Mbàkke salaamun waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu dana tafaddal mashkuran fa jazakallahu xayra jërëjëf Oustaz jërëjëf jazakallahu xayran yow itam ci nuyoo yu am solo yooyu ndeysaan ndeysaan eh, namoon nañ ko ñu may namoon naa leen waaw namoon nañ lool de salaamun yeeg doxalin wu am solo waaw ndeysaan ndeysaan doon nga nam mu albidaaya ak yooyu dama koy jàpp uh-huh. xam nga léegi rajo bi moom boo génnee waaw da ngay connecté waaw gi daal mooy nam mu toog nii jàkkaarloog yow uh-huh, uh-huh. ñu nekk ci thème d'actualité ñoom seen yooyu waaye lu ko mooy maa ngay ànd ak yow nag jataay bi ndeysaan waaye jamono ji nag day fekk foofa xaw a guddee day guddi lool ndax ñoo ngi vingt deux heures ñoom ñu nekk dañ cee dolli waaw vingt trois heures minuit une heure waaw une heure boo yokkee sa rajo ña nga tëddal yow waaw fi mu kay ñu ngi ci une heure quarante neuf normalement kon. <laughs> waaw est-ce que. boobu woo ñaar damay génn nag ci couloir yi. Ah. ba noppi door a duggaat. est-ce que ah loolu métti na di. est-ce <laughs> loolu kat kii maan la. boo jàppee di déglu léeg-léeg nga déglu ba mu yàgg nga am loo bëgg a wax lool wala. waaw waaw. <laughs> nga am foo xam ne daal day am loo yëg moom. xam nga fecc kat du du ma. waaye léeg-léeg nga dugg foo xam ne fii ne sëñ Mbàkke <laughs> ndeysaan damay nii lay def sama loxo bi ah. bay day neex xam nga yow nag tubaarkàlla kaar <laughs> nga dugg foo xam ne ndeysaan ah sëñ Mbàkke tubaarkàlla ndeysaan affaire bi day neex ba nawal wana wana xamit ni cëpp rek <laughs> du ma wax sax du ma dugg ci émission bi. Mhm. waaye dama naan la dëgg la. wala ma foofu la. ndeysaan rek wala ma defal ak jëngal. <laughs> Sud noonu laa ko yéege <laughs> noonu laa ko yëgee boobu oustaz. am na solo tubaarkàlla naka coonay aj gi bi ngeen ñëwee. baa noppalu ngeen waaye maa ngi seetaan ah. access média nag. waaw access média moom access média ni nga ah. noonu. mi ngi tane. <laughs> Ah, moom yi di nee nañ ma. Eh, waaye yow bi xamuñu woon ne kii nga lii lii foo ko jàngee. xam nga ko laaj ma ne ko loolu daal oustaz Alioune Sall la moom ma ko jàngal. am na ko ma kii mooy seetaan ni en direct. waaw mooy sëñ Mbàkke. mu ne waaw allahu akbar. ah <laughs> ndeysaan muy sibile. maag bokkum daal yaa ñu formé <laughs> <laughs> maag professeur bokkum <laughs> luñ fa wax daal yaa ko jàngal muy jubilé macha allah am na solo macha allah ci ndokkeel réew yëpp leen ci ndokkeel macha allah jërëjëf oustaz a ngi koy rafetlu jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf tubaarkàlla jërëjëf yow moom ndokkeel li mën nga koo ndokkeel sa bopp suñuy ndokkeel it bay bon mu ndokkeel la te ñaanal lu ci jub rek yow la lu ci dëng nag ñoo mënul rek ndeysaan ndeysaan ndeysaan am na solo en tout cas tubaarkàlla na ngeen def ak coono aj gi baa noppalu ngeen tuuti waaw ñu ngi noppalu di naan soow mhm. ñu ngi noppalu di naan soow naan soow. waaw ah ku jógee Màkka daa war a naan soow ak yooyu. <laughs> xam nga soow de <laughs> soo day wàccee day wàccee ab ab coono. Ah. ba demee ci naar yi. Ah. bu tàngee jër dañu naan soow mu woyof. Ah. tudd ko sirik. sirik waaw. ah tax léegi ak aj màkk ba noppi moo ma fu ma romb suma jaaj ne mbaa yi ni ngi naan soow ñu ree ba sonn mm, mooy ndax mooy tax mooy tax ñu mën a noppalu daal mooy tax ñu mën a noppalu waaw ndax soow dafa am solo loolu kat mat naa xam kon bat naa xam lool <laughs> ndeysaan kon ñoo ngi noppalu yéen a ngi delluwaat ci activités yi ndànk-ndànk waaw ñu ngi delluwaat ci acti actualité yi ndànk-ndànk mm-hmm. activités yi kon mm-hmm. ndànk-ndànk macha allah mm-hmm. di wër daara yeeka jekk-jekkal tubarkàlla noonu baax na euh, ñu dalalaat leen jàmm rek ci réew mi euh, ni nga ko doon waxee euh, bi nga demee léeg man leen ñëwaat nga ci réew mi ñu la bëggee lool réew mi nga xam ne wax dëgg yàlla marqué nga fi sa empreinte ci liggéeyu lislaam bi Euh, sof ko itam ci liggéeyu mag ñi ci taxawaay bu rafet boo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu. bëgg naa bëgg naa leen mayit dañ mm-hmm. bàkkee mm. réew mi rekk la nu am réew mi mm. moom rekk la nu am mm. man aw ma nationalité ca France mm-hmm. aw ma ko ca Allemagne mm-hmm. aw ko ci Amérique te bëgguma ko aw góor aw ko ca Arab Saoudi aw ko ci Tunisie te bëgguma ko réew mii daal nga xam ne suñuy waajur fi lañ soqi koo hmm. nu soqi ko ci ñoom hmm. awma réew moo ko gënal hmm. wax la ko tey jërëjëf waaw tubarkàlla loolu réew meenu demoon bu nu ajee ba noppi ñibbi si rekk la ñuy bëgg dëgg la dëgg fekkoon dafa ne am ay njag njaay ki super <laughs> duñ leen fa bàyyi kon de kon duñ xaar duñ xaar avion dëgg la dañuy aj ba noppi rek ba ñëw ko ñibbisi dëgg la ndeysaan waaw kon Sénégal noonu rek moom lañ am am fi nag ak ay mag ñoo xam ne. Hmm. buñ leen amutoon. Hmm. tey tubaab yi nuy moom. dëgg la. Hmm. kon. kon tubaab yi tubaab yi sunu. ndeysaan lem ñu bañ nekk benn ki ñu sol ñu ci saako. tey dëgg la nga xam ne lu waaye indeeti oustaz da koo war a sof ci liggéeyu mag ñi. rek rek. ku dégg li xew. loolu rek ngay def. da koy sof ci liggéeyu mag ñi rek ñu dem. waaw macha allah. léegi nag su fekkee mag mi. bët da ko sibbee àll hmm. bu ñëwee num jiyee baax na hmm. ndax day sërxal hmm. yow nag yaa war a am xelum bi nga ñëwee mag mi loolu mu defoon boo ci amee xaw ma am nam din sax nag boo ci amee mooy yëgal ne jiina ba noppi boo gisee ak ñax bu dil ñax gi mooy xëy na gis nga taalibe ba peut-être am na loo xam ne ku ko yokkoon mu jël jéem ko ko yokk waaw est-ce que waaye effacé ko nag moom. Mhm. du xalaat. wallaay wallaay <laughs> du xalaat de mag mi defu fi dara moom du ay wax. Euh, ëpp naa wax. ndeysaan. Mhm. ëpp naa wax ndax defu fi dara day wax ji day sori. Mhm. defu fi dara. wax ji day sori lool. ndax yi fi xew. ndeysaan te mu ne su ko wax ci micro. dëgg la mm. dëgg la dëgg la wax nga dëgg Oustaz jërëjëf loolu taxawaay bu rafet la. Mm. Eh, te itam ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax te di ci bëgg ndax dëgg dëgg nag eh, ku la soppit eh, li tax ñu gën laa sopp mooy am na détails yu bari yu am ci pénc mi. Mm-hmm. ak yenn yoo xamante ne amut solo lool te kenn du la ci dégg. man man man man sax ni ngay def ba mucc ci daf maa jaaxal daal. ndax mm. léeg-léeg day am yu xew yoo xamante ne maanaam ñàkk cee wax jàmbaar dëgg dëgg dëgg mooy mën a téye boppam ba ba ba tiim ko ci kaw te du ci wax loolu loolu noo koy teeree noonu. waaw xam nga Sëñ Mbàkke. Hmm. kuñ dénk ñaari nen. Hmm. bu ci nekk nga téye ko ci say loxo. Hmm. dafa am noonu boo ko defee rek nen ya daanu te boo daanoo da ngaa toj nen jaamu toj say nen. dëgg la dëgg lu rek la. jooju wax xóot na. wax ju wax kuñ dénk ñaari nen. waaw waaw. xam nga tey bu fekkee dañ naan dañ koy déglu ci tafsir. di ko déglu ci fiq peut kon ñaari nen a ngoog mhm. te ñaari nen yooyu ñëpp dañ koo bokk ñëpp ko bokk ëpp liwu ma ci kenn mhm. dëgg la dëgg la ah mhm. kon su ma ca bàkkoo mu yàqu su ma ci tiitaroo mu yàqu su ma ci xuloo xulooloo wuñ ma dëgg la wallaahi dañu maa dénk ñaari nen rek macha allah waaw macha allah loo rafet na léeg-léeg wax ko sunu sunu étudiant yële ca bitim réew ca ca ca màkka góorgóorlu leen ñibbisi bu ngeen ñibbisee. Hmm. ngeen def formation. Hmm. ngeen defee formation. Hmm. jël liggéey ba continuer. dëgg la tey. ndax wayaa aadam uskun anta. ab joxoñ la dëgg la ab joxoñ la. formation la defi woon. waaw ndax wa allama moo jiitu. <laughs> daa jàng ba noppi defi stage. jeex na door a ñëw liggéey si fii ci àdduna. boo ko defu da nga yàq rek. macha allah. <laughs> waaw. tubarkalla te njàngale mag ñi ak seeni jaar-jaar doy na sëkk formation. njàngale mag ñi ak seeni jaar jaar. doy na sëkk formation. tey xanaa kon ñun dañ leen a jàngut suivre ñu seen i jaar jaar moo tax ñu am problème yi ñu am. coow lépp nga noonu benn jàngoo leen walla jenn waay moo lay jàngal sa maam. Hmm. waaw kooku de moom ni ko déggee la la koy waxee te mën naa bañ a baax. <laughs> jeex na jenn waay moo lay jàngal sa maam. Hmm. jàngal la sa maam ba nga bañ sa maam. Hmm. mu jàngal la maamam ba nga bëgg sa maam. bëgg mag maamam. est nga xam ne ku lay xeebloo sa maam boo moytuwut boo ko bàyyi rek am na kum lay tegal. jeex na. Hmm. te boo jàngee sa maam mii. Hmm. allahu akbar. Hmm. allahu akbar. que da ko ñemee yóbbu fépp fu làmbi xam-xam am. fépp làmbi ragal yàlla am. fépp làmbi njub am. fépp fu làmbi tadxiya am. da nga fa mën yóbbu sa maam ji. dëgg la dëgg la. waaw. macha lu am solo la lu am solo la mm-hmm. jërëjëf oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu ak soññee yooyu léeg-léeg jamono di soxla façon wax yooyu ndax ñun léeg-léeg suñu démb euh, wala boog sukkandiku ci démb ci sukkandikuwaay bu baaxul day yeexal suñu doxub tey mm-hmm. euh, jamono ji waxtu yi nit ñi di dépenser lépp lépp lépp ci di corriger yi nga xamante ne jàlloon na mm-hmm. te yow tiimoo ko ba sut ko ba mën koo corriger bari na ñu muy tardeel te mi ngi indi ay noonoo ak ay féewaloo ci ay détails yooyu manoon na ko bañ a jar léegi léeg nit yoon di ko topp ñu ne bu nang amee nang mi at. Mhm. yoon sañu du ko topp. waaw dëgg la de waaw ci mbiri àdduna yi rek. ci mbiri àdduna rek. Mhm. léegi soo ñëwee jékki-jékki fekk benn tribunal bu ñu woon ba romb ko. Mhm. nga delloo si waat projet boobu di ko àtte. boo ci amee ndam noo bëgg a def. wax dëgg yàlla bu ñu la nee léegi yaa jël ndam li. <laughs> nga xam ne amul lum lay yokkati wala loo ci mën a mën a bénéficier. effectivement. jeex na mm-hmm. loolu rek la dëgg la dëgg la am na solo jërëjëf oustaz ñu ndokkeel la ci bu baax a baax daal di soobu nag ci xibaari daara ji mm-hmm. xibaari daara ji euh, bari na lool ay actualité yoo xam ne sax dama koo dencoon waaye kay léeg-léeg ma dégg la nga naa ko dugal ci waaw waaye ndeysaan li ñu waxoon rek maak oustaz Alioune Mbaye ne loo ne suba laa ci wax bu subaa mu xew yi <laughs> moom daa mel ne ñun suñu réew dañoo bari xew-xew ba day tegaloo noonu la eh, booy muy tuut sax da ngay delluwaat ci gannaaw a gannaaw <laughs> wallaay ndeysaan tey nag dama koy doore ci boo xam ne daara ji yëpp la soxal ginnaaw bi ñu leen ci ndokkeele bu baax a baax ci seen yitte ak seen taxawaay bi ngeen ci am jullit yëpp bëkki baa boog ñu baree baree bari rafetlu ko lool mm-hmm. muy suñu euh, mbokk mu di oustaz euh, oustaz Tayib Socé mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ne nattoom bi jeexagut ba nëga ni mm-hmm. waaye nag ñu gis ngeen taxaw fas yéene euh, sof ko ci liggéey bi nga xam ne fekkoon nga ko fi yow ak sa xarit oustaz Iran Ndaw ak ngeen àndal war a woote ab teleton boo xam ne da ngeen a war a dajale lu tolloog million jëmale ko ci nattoom boobu ngir mu teggeeku ko loolu nan la demee waaw jërëjëf ci laaj ba am solo bi. Mm-hmm. actualité la wax nga dëgg. ndax réseaux sociaux yeeg. Mm-hmm. journaux yeeg. Mm-hmm. télévision yi ñu ngi ko ñu ngi ci. ni mu demee mooy bu ñuy bëgg a dem bitim réew. lañ ko wooxaat. ne ko président gracié woon na la. waaye li fi nekkoon mu ngi fi. comme moom amul lu mu def ci poosam. ñu ne ko kaay toog. nun tam nu xalaat nag ne hmm. ginnaaw moom ma nga fam toog hmm. ñun ñoo ne ci bitti hmm. nunu ko Iran Ndao waxe mooy nun yëg nun ñëpp na noog ñe ñoo ne ci biir dëgg la ndeysaan te loolu ñu koy topp li fekk tegu ko ci loxol ñooña yoon mën na ko bañ a bàyyi ñu bëgg a daje incha allah samedi vingt une heure seen TV incha euh, laaj mbokki jullit yi ñu def seeni participation man fi ne am na ñooñ fi ne commencé nañ ma jox. Mhm. taal naa sama ordinateur. Mhm. ku la jox nga bind. ku ma jox ma bind ko. Mhm. bind adresse am. bind la ma jox. macha allah waaw. donc mi ngi mi sama ordinateur. bu nu yàlla yóbboo it. ma mën a yëkk ci ne man lii laa joxe. incha allah door na oh, nu yàlla yo baaxee. nun lañ ko bëgg a defee. man lii laa joxe. waa ca nañ tàmbali. ñu ngi ñuy laaj téeméeri million hmm. ak juróom benn fukk la woon waaye imaamul Busiri mi nga xam ne moom la ko séqal bi nga jox ko daf ne ma maa ngi lay waatal ci yàlla su fekkoon lii lu ma moom la hmm. sama xel xalaatut ma séen la nga toog ci télé hmm. di laaj loo joxe mukk moom Busiri Sàll loolu la ma wax bu sëñ Abbas waaw waaw loolu rek laa doon xaar ci moom de loolu la ma wax de ma ne ko ah mu ne ma yàlla xam na ko léegi nag commission li ci war na teg muy soixante millions yi hmm. naa ko teg fële hmm. li ci des mooy yëfi jàmbur yi ma moomul moomu leen ko hmm. est que nga xam moom li mu ci mën a bàyyi moom bana ko lépp def na ma su man na bàyyi lépp waaw yàlla xam na ne doo toog ci télé mukk may jàkkaarloo yooyu ngay laajub xaalis te loolu la mu wax daal bàyyi soixante millions yi léegi moom na féete ah ah loolu loolu rek loolu rek lu rëy la lu rëy la loolu rek lu na ko yàlla fay amin dana ko ko fay yàlla na ko yàlla fay amin amin yaa rabbal alamin donc loolu la ñu bëgg mhm. xam naa ñëpp daañu ci fekk incha allah mhm. nu dajale ko mhm. dem yit ko procureur mu jox ko ñañ koy jox ñu ànd ak sunu waay mu dem këram incha allah yal ko yàlla moo mootali defe naa senegale yi danañ leen ci wuy si ndax itam ñëpp xam nañ ne lu lu am solo la te itam lu noobul la. loolu lañ foog tàmbalee ci directeur Baye Omar Gueye mii ba ca. Mhm. nit ñu gën a sori. dëgg la incha allah moo tax it balañ cee gën a sori oustaz ni mu nekkee actualité moo tax mu bëggee indi tuuti ab laaj boo xam da ñu ci defar leeral. incha allah daa loo xamante ne bu amee demaleek fekkale yi day bari lool. incha allah da nga dégg sax koo xam ne danaan ñi jàpp ñëpp kenn mënu leen a defal noonu. wala wala wala mu bëgg xam ba xam yéen yan information ngeen am dëgg-dëgg lan moo sabab bor bi ba mu laxasoo ko nii boobaak léegi. jërëjëf hmm. man bañ ko njëkkee woo hmm. defe naa dafa fanaan yi ci ëllëg sama xëy fekk ko fa booba demagul fële mu ngi ci rëbës gi ne ñoo ak si sama sama sama njort da naxuma ndeysaan sama njort naxuma ma ne ko hmm. dafa am ñu ne ko woon hmm. danoo soxla daf dañoo am ñu soxla or. Mhm. ak ay client mhm. loolu buñ ci jotee xaaj bu bari la téeméeri million la ak juróom-benn fukki million mhm. boo ci amul fukk ak juróom it am loo ci am waaye même soo ci amul itam ñun liñ bëgg mooy ku ñu doxal marché boobu. sëñ Mbàkke ki nga koy doxal nag muy koo xam. wala muy ñoo xam ñaari nit nga xam leen. Mm-hmm. di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg lekk gerte caaf tey naan ataaya. dëgg la <laughs> ngeen di wax ba ba yeewal ci barab. waaw ñële na la. gaa yi dee ngi nii ñu jox leen. Mm-hmm. ak nga ne jox leen. Mm-hmm. ñu ne ñu jox leen yaa ngi téléphone nga ne jox leen. ak ah, ñu jox leen. gaa yi teggee fa naax saay. léegi bu ñu toogee mu yàgg ñii amuñu gisuñu or gisuñu xaalis. Mm-hmm. yow mi ne woon ñu jox leen lañ naan waa yow. Mm-hmm. yow yaa ne woon ñu jox gaa yi ana gaa yi nga ne man gisuma gaa yi ñu naan ah, déet loolu du ma nekk noonu. dëgg la loolooy mm-hmm. ñoo la toog kon bañ gis gaa yi. loolooy yëfi lekkoo xaalis gisoo xaalis déggoob xaalis waaye nag yow lañ wax ne yaa neen jox leen gaa yi parce que xam nga gaa yi. ndekk gaa yooyu xam nga leen. waaye lan lanu lal bokkut ak li nga lal d'accord te ku dul fen fen la day yomb dëgg la ku dul war war ko day yomb dëgg la dëgg la lii rek a jooli nag lu am solo la nga xam ne moom du xaalis bu buñ ne da ko buñ ko jox mu lekk ko déedéet wala du lu jaar ci ay loxoom sànku déedéet waaye daa am ñu mu wóolu ci kàddu mu joxe kàddoom ñu jox ñooñe ñooña teggee fa dem gannaaw nag moom moom lañ xam moom mooy aji fay ji moom mooy wëri ka dem waaye ñee moom dem nañ daal rek defaat nañ ko benn ustaas bu mag ci dëkk bi mm-hmm. Hmm. waaw ñëw ne ko si école bi lañ bëgg a defar. waaw waaw najaay war ngaa mën defar école bu ne ah nuñ koy defaree ñu ne ko boo lebee ci banque bi ñu lebal la. Hmm. <laughs> lijjanti ba mu jox leen kayitam yëpp. ne sept millions la bëgg. Hmm. ñu yokk ca zéro. muy soixante dix million ba léegi gisu ba dimb gisagu leen. laa ilaaha illallaah. seetal loolu. nga xam ne kon ci biir euh, gëm-gëm gi rek ca lañ lay fekk ba nax la. jeex na muy muy muy woote bu am solo oustaz boo xamante ne ñëpp war nañ cee dugal seen loxo. incha allah loolu yaakaar te itam ak jaamu da cee nekk jaamu yàlla gu rëy rëy. boo mm-hmm. xamante ne lu ci waaye defit borom bi mooy fay te mën na la koo fay te dana la ko fay itam. incha allah incha allah incha ban message nga ciy joxe. message bi ma ci joxe rek mooy nu ñëpp ñu def ko suñu yëfi bopp. Mm-hmm. ñun ñëpp def ko suñu yëfi mm-hmm. te xam ne woo juddoo maamilo xaadira waaw boo juddoo. Hmm. ma amiloo xaadira. ñu def suñu yëfi bopp. Hmm. tool nañ ci jamono asaka. Hmm. asaka yëpp nañ ñëw. ñu def ko ci. waaw waaw. parce que yëpp nañ ah, asaka mën naa dugg ci loolu. waaw wal xaarimiina. waaw wal xaarimiina ali. <laughs> wax nga dëgg mooy borom bor yi. borom bor yi. borom bor yi. wal xaarimiina. yëpp ci mën a dugg. waaw. dëgg la kon ñu ngi lay def ah, ñu ngi def affaire boobu na am ñoom jaral jaay seen or. na am ñoom jaral jaay seen takkaay. Saas Ali Mbàkke hmm. bu doon Soudan. Hmm. kenn koy def. Hmm. dëgg la de est bu doon duwaa ji nekk Soudan. kenn yëkkati laaj ko Amadou Samb wala nga ko docteur Samb. ci kuliyatu euh, Afriqiya. dëgg la bu doon Soudan kenn koy def. su bëgg nga xëy mun a toog leen. te loolu la Ousmane defoon bu na Affan jamono Yonent bi alayhi salaatu a salaam. dañoo soxla nangam mu ne bàyyi la ma defal ñëpp defal sama bopp. keroog la ko Yonent bi Ousmane du def yàlla lu ko naqari ndax sa def def bii. kon nag message mooy nag ku nekk nekkum Ousmane rek. Mhm. ku ne def ca lam am rek. ndax ki ñu koy defal wax di yàlla jariñ na ko diine ji ci Sénégal. am na ci genn góor gu def lu daw sama yaram ci ngoon. waaw këram la waaxoo ñëw ba ñëw jox mu enveloppe. ndeysaan. Hmm? ne ma maa lay waatal ci yàlla ne su ma ko amoon maay def lépp. allahu akbar. amul du jaw la tudd mi ngi nekkoon ci RTS. ndeysaan waaw. laaj Amadou Diaw bu subaa naa wax gaa yi lim joxe ndeysaan tubarkàlla yal na ko yàlla gën a man loo amiin te yàggal ko fi amiin waaw am na solo de waaw docteur Ahmed loo kenn jiitu ko ci moom moom kay def na ci sax ab woote ndeysaan waaw moom kenn jiitu ko ci def na ci ab woote fan toog mhm. lanu ndawam fekk mhm. Mhm. donc incha allah yëpp ñëpp daa ñëw. waaw waaw loolu rek a war. lool rek a yaakaar suñu kilifa diine yu mag yeeg ñoom ñëpp rek. xam naa sax danañ ci dugal seen loxo. sëñ Mbaye Sy Mansour. yónnee na. Idrissa Diop. ne ko neel nee leen hmm.

ni ki ñu koy defal wax dëgg yàlla jariñ na ko diine ji ci lislaam te itam sonne na ko lool waaw waaw waaw maanaam ginnaaw bi nga xam ne jëmmi nit rek ci humanité rek nit koo xamante dañ koo nax mu nekk ci kaso booleeg wéradi mhm. eh, rek ñu jàppale ko ba mu génn jaamu yàlla gi ci nekk rek dafa rëy rawatina nag koo xamante ne dafa nekkoon ci toolu lislaam bi di bay eh, mhm. te liggéey lu rëy rëy ci tafsirul quraanul karim liggéey ko ci daara lool rek jar ñu jàppale ko bu baax a baax yal na ko yàlla mottali amiin xam naa téléthon bi samedi ngeen ko wax fële ca eh, Sen TV mhm. vingt et jotee waaye nag fii ci rajo bi itam fi nga nekk euh, ñoom itam kenn jiituwu leen moo tax bi ñu ko ubbee ma ubbee ko jotaay bi ñu xam ne buntu nga ci bunt yi nga xamante ne buñ jaaree ci yow it la ñuy joxe dana àgg te yow itam combat bi sa combat la ca bu njëkk ba ba bu tey jii waa ji amuloo morom bi mbir mi amee bi ñu koy waxtaanee dama ne leen euh, oustaz Alioune Sall daf xew-xew bi dafa xew rek ci saa si mu dem Màkka mhm. waaye leer na ma ne fu mu di nekk xelam a ngi foofu dëgg ndax ca bis bu njëkk ba ba mu amee ci yoonu njëkk ba da ngaa daal di jubali seeti ko mhm. boole ca la nga doon taxawu ca soxnaam ak li ci aju yëpp ñu bare bari xam nañ ko waaye ñi xamut xam nañ ndax yow ki tax ngay def mooy borom bi subhaanahu wa na leen gën a dëgëral amin yow ak oustaz euh, ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ñëpp ci liggéey bi te te defal leen ci ndam incha allah incha allah solo la jërëjëf xaj Mbacke jërëjëf xibaaru daara ji boobu laa ubbee dama ciy teg beneen boo xam ne moom bopp bànneex la bu neex mhm. di ubbite jumaa masaalikul jinaan macha allah bi nga xam ne ñi ngi koy waajal fii ci dakaar moom itam di image boo xamante ne euh, dafa rafet ci lislaam euh, rafet lool ci euh, am réew waaye bokk ci yi nga xam ne da koy sagal man jàngat nga ci def la ci gën a neex sax day mhm. mooy fee jumaa ji nekk mhm. moom daal xawma ku ko fa natt <laughs> daal mel ne foofa rek la la jekk daal <laughs> xaw nga sëñ Mbàkke waaw yàlla def ma binde man euh, artiste la ndeysaan mbirum dessin ak mbirum cëppal waaw daf may góor daf may góndi ndeysaan maanaam problème mu njëkk am waaw mooy bi ma demee ci jumaa ji bi ma ko wëree mm-hmm. moom daal mu ngi noonu rek mu mel ne bi ñu sañ dëkk bi daal foofa dañ ko fa doon bàyyil jumaa ji rek kenn musu gis loolu <laughs> bàyyil ko fa <laughs> la ñaari tal yu ko def nii waaw ko ca kanam ne waaw moom daal mu ngi di nag di nag benn per boo xam ne bii mm-hmm. benn peru xaqiqa bu am solo mm-hmm. Mm-hmm. benn diggal ndeysaan waaw waaw diggal boo xam ne fanaanum sëñ bi woon ci Dakar Dakar gii lii rek ko mën a fay ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa thabuta tarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi wallaay walakin sabaxanil maahi lii rek ko mën a fay waaw mu ne bu yontu bi tiiwutoon ci sama ci sama ci sama ci sama mbubb hmm. lay kon tubaab bi xam may kan tey tey waaw hmm. walakin sàbba hmm. bi tiiwutoon tubaab bi xam may kan kon tubaab bi xam may kan masha allah heureusement heureusement heureusement moom laa fàttali ko rek fa mu jaar ma jaar fa rek ndeysaan loolu loolu loolu loolu ab joxañ la du pay gi nag waaye benn joxañ la ci joxañ yi ndax yéneen a ngi ñëw mhm. yeneen ñëw mhm. kon ña ko jiiteeg ñoom sëñ mbàkk yu fay ak mhm. ña ko cay jàppaleeg ku fa mas a romb ak ku ca mas a xool ak ku ca mas a dem ñëpp ci jàpp gi la bokk dëgg donc loolu lu am am solo la moo tax le vingt yaakaaruma yaakaaruma. Hmm. kenn kenn. di xëy lu dul loola xëy dëgg la benn programme mooy am. waaw ku ci demul de histoire dana la raw bu rëy. ñii def ko hmm. direct. waaw ci rajo. Hmm. ñii def ko direct ci télévision yi. fu nañu def ko ko. lu tax ndax fàttaliku euh, liggéey bu rëy boobu nga xam ne. sunu maam jooju jaaroon na fii mhm. demoon liggéeyi woon ko mhm. bi mu ñibbisi mu ne alrujo wacc alrujo yi ilaa xaw mi saadatana wal tag fi naa yow ma jëm alxalxi niiraana ndeysaan saadatana moom ñu ngi ci mhm. ñu ngi mu mbaay wal fi naa moom jëm alxalxi niiraana ñu am te yàqin mu jeex dëgg la waaw nag ilaa xaw mi la wax waaw ilaa xaw mi <laughs> yal na ko yàlla amiin amiin donc loolu suñu mbàkkee événement la bu bu bu am solo bu neex boo xam ne liggéey bi yàgg na mhm. waaye rafet na jekk na lool fee mu nekk rafet na fa jekk na fa mhm. Mhm. waaw macha allah kon nag félicitation suñu yu fay waaye félicitation ñi la ci jàppale ñëpp nag waaw ñëpp jërëjëf ci sa laaj bu am solo lu am solo la jërëjëf ñu jaajëfal la ci baax ci njàng di ci ndokkal nag suñu xarit Cheikh Mountakha waaw ndeysaan alxalifa alxalifa alxalifa ndeysaan waaw barki dem bi ma demee Mbàkke li ñu àndul maa yow moo tax àgguma fa waaw yaa am couleur waay. waaw li ñu àndul maa <laughs> moo tax àggoo fa. waaw est-ce que. ndax bëggoon naa faa àgg. waaw bëggoon naa nuy ji sëñ euh, sabat bu sëñ. bu sëñ Chouaib bu sëñ Chouaib dem na ko jërëjëf. waaye comme ànduñu maa yow. waaw ndeysaan bëggumaa dem te ànduñu. est-ce ce que waaw lu ko la tabarkalla. waaw akbar. waaw. tubarkàlla yal na yàlla fay la. amiin ñu bokk est que loolu rëy na trop. Mm-hmm. Eh, mi ngi noonu liggéey baa ngi noonu rafet lool. waaw ci jumaa waaye rafet lool ci réew mi ñu ko defee. dëgg waaw rafet lool it ci eh, maanaam ci lislaam akub tiitaram. Mm-hmm. moo tax lislaam ko moom daal. parce que dafa am ay mm-hmm. ay point stratégie yoo xam ne. ci penc mi. dafa war foo tollu seen leen. dëgg la bi def cee bokk. dëgg la waaw. boo jëmee Colobane seen ko mm-hmm. boo jëmee grande Dakar seen ko mm-hmm. boo jëmee Castor seen ko mm-hmm. boo jëmee Asalem seen ko loolu dafa am solo trop ci penc bi waaw mm. tubaarkàlla macha allah jërëjëf tubaarkàlla jërëjëf oustaz mi ngi noonu danañ sax yaatal ko bu gën a jege si incha allah ci jëmmi juma ci boppam mm-hmm. eh, eh, ak li nga xamante ne juma ju toll noonu moom la ëmb ci ay njariñ mm-hmm. ak yi nga xam ne moom lañ fa waajal yëpp tur wi nga xam ne moom lañ ko tuddee ci boppam di masaalikul jinaan ak yi nga xam ne moo ci nekk danañ ko beral ay waxtaan yoo xam ne danañ ci lu gën a yaatu incha allah jërëjëf foofu rek laay daal di dugg nag ci lenn ci yeneen actualité yi tey damaa jiital yi daara ji moomal boppam door cee teg na yiñ bokk ak ñëpp <laughs> benn ngi ni oustaz di xew-xew yay xew fële ca kaso ba mm, ca rëbës yal na yàlla teggi loxo ñam ña fa eh, tegu ñëpp te ne ci ay jafe-jafe bërki démb ci guddi daal dañoo xëy ñu ne ñaar dafa faatu mm. ndax eh, buuxante boo xam ne amoon na fa mm-hmm. am ñu ne buuxante la am ñu ne courant baa leen maas ndax dafa tàngoon ñu doon buuxante ci ventilateur mm. maanaam lañ ca wax yëpp daal bari na lool ci ay ay version mm-hmm. waaye lu ca man di am kaso ya xat na mm-hmm. ba yu mel nii di fa faral di am man jàngan nga ciy def jërëjëf gis nga àtte mbàkke àtte mm. moo wër te yàgg kuñ ci kaso bi boo fa amee ñetti fan ëpp na ñu àtte la mm-hmm. bàyyi la nga dem wala ñu tëj la ñañ war a bàyyi ñu dem ñëpp buñ leen bàyyi woon ñu dem kaso du feesi nii mm-hmm. dëgg la dëgg la loolooy benn mm-hmm. bu ñaaral ba éducation éduqué nit ñi ba jikkoy defaraat ba kaso yi du fees arab dafa naan wax ne man fataxa madrasatan hmm. axlaqa sijnan hmm. Hmm. man fataxa madrasa axlaqa sijna mu ne ku ubbi école tëj kaso tëj kaso léegi nag su ubbi école ba nag ubbi kaso am na problème am nit ñi dugg ci ecole bi bari lool ñi dugg ci kaso ba bari lool non y a quelque chose loolooy yëf kaso yi bu ñu la wanee la fa nekk da nga naan noonu lii du noonu waaye su fekkee benn six mètres carré la wala six mètres si si si sat ñu la soixante douze personne quatre vingt personnes ña nga ca loola xaw naa may métti ci nit ñi dëgg la summeeku da te tee tàng <laughs> kon boo gisee lu lay upp mm. boo gisee lu upp boo bu ne mën na faa am mm. te sunu penc yi ragal aada tax na ñi mu ñoo tabax kaso mm-hmm. ndax dañoo defe ne ko tabax kasu yaa cee dugg mm. ko tabax morgo fanaan ca mm-hmm. ñu loolu la ñaakaar <laughs> ko tabax kasu yaa cee dugg waaw ko tabax morgo fanaan ca laa ilaha illallah <laughs> moo tax fi ne booy laaj nit bañ jàpp ne morgo ngay laaj kenn du la mm-hmm. jox mm-hmm. te yooyu bokk yi nga xam ne nit munu koo ñàkk ci dundam jeex na kaso ci jamono ji ñu toll bu fekkee ñun la fa tubaab bi tabaxoon ba léegi moom la mm. te tubaab bi daaw fa dugal juróom fukki nit. Hmm. wala sax def maanaam kaso taxu ko woon a jóg ci moom. waaw waaw feneen fu mu doon defee yeneen la. yeneen ah. ñu jël ko def ko kaso. Hmm. di fab ay nit di ci rokkos naan la chambre nangam nangam nit ca nekk. loolu dañu war a gaawal àtte yi. Hmm. ah avocat yi wax li xew. ñu bàyyi nit ñi nga xam ne dañu war a bàyyi. nañ war a tëj ñu tëj leen su boobaa la fay nekk mën naa am du nekk nombre bu bari boobu. loolu rek lay tekki. Mhm. loo ko mooy yi mën naa am yeneen amati yeneen amati. Mhm. waaw. Mhm. yàlla na yàlla dimbali. dëgg la amiin yaa rabbal aalamiin amiin mi ngi noonu oustaz jërëjëf kaso yi bari mm, seenum néew ay xam naa ne bokk na ci li ko indi. Euh, néeg ya xat lool ndax am néeg bu ñu tuddee lim ya fay nekk am foo xam ne paquetage lañ koy tuddee nangam nangam day mel ne ëpp na lool ba léeg-léeg sax nit doon fa dem jikko ji mu fa doon yóbbu boo moytul mu jëlee fa yeneen jikko yu yàqu ndax condition yam fa nekk te foofa nag daa war a doon foo xam dañ faa war a defaroo ay jikko mais waree su faa jëlee jikko yu baax ku génn jàkk mhm. waaw lay ndeysaan mhm. am na solo oustaz jërëjëf beneen bi nga xam ne moom lañ ci toog maanaam toftal ci actualité boobu ginnaaw bi kaso yi jàllee du sori nag euh, lu jëmite ci wàllu politique. Mm-hmm. a coow yi nga xam ne moo fi am ay milliards rek la wax de. Mm-hmm. milliards yu bare bare bari daal fan yi moom la ñuy jaabaa jonge mm-hmm. eh, gis nañu démb ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko génn def ab euh, conférence de wala mm-hmm. benn sorteem bu xumba xumb boo xam ne mi ngi doon waxtaan ci euh, contrat yi nga xam ne moom lañ signé bu yàggut jëm ci wàllu feer beeg yooyu waaye yem ca wax ba mu noppee ca saasa rek la waa état bi mel ne ñoom it dañoo génn wane ne daal moom li mu doon wax bu deelu am la it dafa jiitu fi nga xam ne fi la mbir yi mujjee maanaam dossier bi mu tiim di wax bokkut ak bi nga xamante ne moom lañ finalisé yëf yi man jàngat ngay ngay jàngat ci boo déggee yenn milliards yooyu ñu koy tudd ci penc mi euh, ak fi nañ ko. waaw jërëjëf ci laaj bu am solo bi. Hmm. gis nga milliard mu dafa bari ku ci wax. Hmm. tegal leer. Hmm. ku ci miim miimal lu leer. lu rek la milliard dafa bari ku ci wax waxal lu leer. ku ci miim miimal lu leer. dëgg du dëgg. kii wax lu leer fu leeree. nit ñi gëm ko. kii miim lu leer bu leeree nit ñi gëm ko. Mm-hmm. ndax nit ñi kat ñu ngi ak seen nopp. ak mm-hmm. seen i bët di déglu. Mm-hmm. ay milliards dafa bari. sëñ Mbàkke. bari na de. kon ku ci wax waxal leer rek. ku ciy def dafa lu leer. su ko defee yooyu nag ci pénc mi. mooy tax nu wóolu sunuy àttekat. dëgg la. waaw moo tax nuy wóolu sunuy politicien lu ko may bu bu kii mii mii mee loo xam ne nun la demee. jamonoy dem ba jox dëgg ki doon wax. dëgg bu fekkee kii wax moom tam day so day sos. Mm. jamonoy dem ba weddi ko. Mm-hmm. lu ci mën di nekk rek ñun nañ ñu jox li mm-hmm. kii wax na wax lu lu lu wér. Mm-hmm. kii miim na miim lu wér. lépp teg ci ay këyit yu leer ay pëpp yu nit ñi mën a teg seen loxo palpable. loo ko may ku fi ku fi penc mi weddi ci ñoom ñaar rek. weddi ga dafa lay topp lu yàgg yàgg yàgg te laa bàyyi. te itam nag lu yàgg ma sa feeñ mm-hmm. dëgg fokk dëgg gi feeñ moom mhm. tey lay doon suba wala ginnaaw suba mhm. dëgg moom fokk mu feeñ muy lu am solo oustaz ci wàllu woowu ak itam ni nga ko waxee nga xam ne kuy wax ku ne war cee wax lu leer ndax daa mel ne sénégalais yi moom booy topp mbir moomu da ngay mel ne ku mujj gëlëm daal ci ndax bu njëkk ay milliards yu bari laa fi déggoon 94 milliards xam mhm. loolu du lu tuuti ci bi ma xamalee milliards ni mu toll nga xam ba dëgg dama naan lu ko nit di doyee sax nationale woote na fi ñu def commission d'enquête daje Ousmane Sonko téewewu ko waaye ba nëga ni ñi ngi di ko jaabaa jonge dañ koy mujj fàtte mhm. milliards yu baree bari lañ doon wax ci wàllu pétrole bi day mhm. mu jàgg ñu jàll waxaat yeneen ñun milliards yooyu noonu rek lañ koy waxee muy jàll ah doy na waar de <laughs> kii waan la ndax suñ ko waxee hmm. euh, ñu yóbbu ko assemblée mhm. te ñu teewal ñu fa ñun ñëpp hmm. war nañoo wax lu daal sunum xel dëgg la de génnal nuy këyit génnal nuy firnde wax ñu leer nañ benn ñu ne lii ngóor si wax dëgg la te bañ a far fenn wala ñu ne lii ngóor si wax du noonu te bañ a far fenn muy lu leer muy lu leer jàmm ne ñu mm-hmm. nelaw ñoom tam ñu nelaw mm-hmm. loo ko mooy milliards yi mooy nelaw mm-hmm. nun du nu nelaw dëgg la de waaw loolu rek lay tekki <laughs> <laughs> macha allah jërëjëf oustaz am na solo actualité la boo xam ne mënee su cee ñàkk jaar moom itam jaarin wu mel noonu ndax ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci penc mi te ñu koy coow coowul politique waaye ñun buñ ci jaaree jaaru jàngat ko ñu wane ne ñu ngi koy bàyyi xel rek mu doy incha allah incha allah eh, beneen bi ci topp tam du sori wàllu woowu mbirum xalifa sàll la mhm. moom itam dafa posé actualité bu mag a mag ci jamonoy tabaski gi bi ngeen fi nekkut mhm. ba nëga ni itam sax léeg-léeg ñu wax ci mhm. ndax dañoo jékki-jékki woon ñëpp di ko ñaanal eh, maanaam grâce jéggal président na ko jéggal président na jéggal xalifa loolu xawoon na fee siiw mhm. euh, ba ci mujjantal gi nag mu wax ne loolu moom bu demoon ba di ko def ah ci ni ma ko déggee mhm. maanaam coobarey boppam lay doon maanaam cëggal guyam la daal bu ci mhm. àggee ba war koo def dana ko def man jàngan nga ci am waaw loolu de xam nga penc mi ñoo ko may ku jiitam réew mbirum grâce mi ñoo ko may yaa ko moom kenn du la ci fekk Mhm. kenn du la ci force nun la ko nun la ko penc mhm. moom it su su ñaanee mhm. su ñaanee li muy tekk mooy day confirmer ne kon moo def waaw moom kay nee sax du ko ñaan abada waaw loolu parce su boobaa du yomb wax dëgg de ndax euh, yaa def nga ne baal ma déglu ko yaa def waaw nga ne baal ma nga ne kon dangaa nangu ne yaa def dangaa nangu ne yaa def comme nangoo góone yaa def waragoo mën a baalu waaw donc ñaari affaire yooyu moo ci am. sew eh, sew yu bare nekk. waaw tabarkàlla. Mm-hmm. su ko defee loolu mooy waral ñu naan ñaanu ko tey ñaanu ko ëllëg. Mm-hmm. kere ba ñu ne Youssouf. Mm-hmm. Euh, kaay wuyu buur. daf ne wuyu. kon day yomb. fu maa baalu nis wa. waaw <laughs> na mbir yi leer ba noppi. waaw waaw c'est waaw c'est histoire. <laughs> waaw day répété wu daal. ci yenn yi léeg-léeg. <laughs> waaw mm-hmm. toujours rek. waaw ci façon yii. ak taarix yottu jaddat mm-hmm. waaw mu rek lay tekki. Mm-hmm. donc loolu mooy kon mën na koo ñàkk ñaan. bu ñuy xaar mu ñaan ko moom it tëdd ko ba mu jeex daf koy gënal ñaan ko. ndax ñaan gi li muy tekk mooy confirmation. dëgg la. tax day wax na kon du ma ko ñaan. est-ce que moom mi aji euh, maanaam baale ji nag. nga xam ne bu fekkente ne da nga bëggoon a tëj ngir wane ne nangam tëj nga ba ñëpp xam. wala yi ci aju yëpp aju na ci. léegi nag ñuy gis ne war ngaa mën a gracier ndax loolu dafiy am ba noppi nga continuer di téye loo yaakaar ne moo nekk foofu ci ay sew sew. moom bu ko defaloon boppam fi ne kenn hmm. su président xëyoon. Hmm. baal ko. Hmm. duñ ko topp dara dara du ko ci fekk tamit. tey du confirmation. tey sañ na ko. bu ñu la jiiñee jàpp la denc la mhm. ñu la xasee teg ca dencukaay ba rek président bu ko nekkoon ci ëllëg su mu ne baal na ko mhm. te kon su kenn ci topp dara dëgg la waaw mhm. problème bi kay mooy na baalu ñu baal ko foofu la coow li nekk. waaw na baal gi moom daa mel ne boobaa day am lu muy saxal ba noppi. te loolu it mën na koo bañ a jubbu moom. jeex na tàkk macha allah. jeex na tàkk askan wi naan nag nañ jéggal diw nañ bàyyi diw nañ baal diw ñoom itam. waaw am na ñoo xam ne xëy na léeg-léeg yu demee ni kii. sentiment lañ cay demee wax nañ dëgg. wax ndax euh, kuñ kuñ téye ci barab rek. xel yëpp ànd ci nañ la téye métti na. dëgg la kaso dafa métti. Mm-hmm. ci kilifa la gën a métti. Mm-hmm. sëñ Mbàkke mm-hmm. kaso dafa métti. mais ci kilifa la gën a métti. damaa mas a seeti sunu mbokku Saas Tayib Soose. ndeysaan. yal yàlla yokk ko te yoon wële. waaw te teggi ko loxo. bi ñëwee toog mu ne ma. Hmm. fii day neexut ma ne ko waaw. Oh. mu ne ma jagutit ma hmm. ne ko waaw. Hmm. mu ne ko mu ne ma yàgg fi baaxutit ma ne ko waaw. mu ne ma ay ñëw fi moom benn affaire la. waaw ñëw fi ma mënees na cee jàng dara. waaw loolu la wax keroog. wax na dëgg. kaso dafa métti. ci kilifa la gën a métti. ak borom njaboot. ay waajur. ay am di jàmm ay xarit ñoom ñëpp ñu yëg yaa ngi ci benn barab. nekk ca diir ba daal fa am fa daanaka junni junni fan. Mhm. yu manqué téeméer. loolu xaw naa métti. Hmm, ab diir la de. ab diir la ab la de. Ah. Hmm, ab diir la. waaye nag lu yàlla jeexal day xëy jeexal ko rek. dëgg la xam naa ku koy teg nit ak li ci nekk ci ay àq yoo koy xañ. xañ ko ko liberté xañ ko njabootam ak yëpp. Hmm. su fekkee daa tegu ci dëgg. nga xamante ne dañ koo teg xam naa ci lay gën a oyofee. bu fekkee sentiment yi doomu aadama moo dox ci diggante bi. waaw bu sentiment yi doomu aadama doxee. dara dara wuru koo jar daal nit di teg moroomu nitam lu toll noonu. boo génnee. waaw du too doon nga doonoon. kaso. kenn ci dugg génn doon la nga bu fekkee sentiment ak tooñ moo la fa dugal. Hmm. boo génnee. Hmm. léegi da ngay génn mina sijni ilal xasri rek. wallaay wallaay foog nga génnaale dara. Hmm. buñ la tooñee dugal la fa boo fa jógee yokk waaw waaw. Serigne Cheikh nee na keroog bañ ko arrêté. ndeysaan. nee na keroog mi ngi ma fekk ma sonn naan fu may noppaloo ji. wallaay ndeysaan moom de moom angle boobu la ko jëlee rek. nopp jaaxal tàkk ay Serigne Cheikh. <laughs> ndeysaan nee na moom da koo defum noppalu ji. mu ne ñu yóbbu ko fa mu noppalu. ndeysaan waaw kay ndax ma noppalu. tey ñoom. xam nga loolu su boobaa sëñ Mbàkke mhm. yubadillahu sayyi'aatihim xasanaat moo fay dugg jeex na jeex na waaw dafa noppale te boo déggee boo déggee dëgg-dëgg asirumal abraar yi hmm. loolu la lay loolu lay jàngal ndeysaan waaw mhm. yàlla na yàlla dimbali ndeysaan amin yaa rabbal alamin mi ngi noonu oustaz loolu itam ci li fi jaar la ci actualité yi indil la itam beneen boo xam ne moom itam artiste la muy génn àdduna ak eh, Ahmad Dansokho moom itam eh, jël na wàllam ci ay bis gi waaw hmm. moom day ak dundam mhm. jàngal na ci lu rëy mhm. benn bañkat la woon mhm. ku bëggoon réew mi am démocratie la woon ku bëggoon réew mi moom boppam la woon waaye keroog bi mu yëgee ni xaw na mage wala xaw na tële congrès ba ñu defoon Mm-hmm. la teggi woon ndomba tànkam ca parti ba mm-hmm. jox keneen moom dong laa fi xamagu ma ne ci parti bu def loolu <laughs> mu joxe parti waaw ne gaa yi jël leen ah man moom dong laa ci xam de waaw yombut mm. congrès mm. <laughs> ñu ñëw ci congrès bi nga tekki sa ndomba tànk mm. joxe ñu jox keneen man de xawma ko fi ci beneen macha yenn parti ak ngi am nañ téeméeri at yu manqué. Mhm. ñii juróom fukki at yu manqué. Mhm. ñii nangam yu manqué. waaye congrès nga dindi tekki ndomba tànk jox gaa yi. Mhm. ah man de moom moom la ah daan soxlaa ci xam. mu tax Serigne Cheikh bi koy defal hommage booba génnagul àdduna moom Ahmed Danso. ndeysaan. jamono yi la teg hommage bi. waaw. njàngale mu rëy. waaw. mu ne benn politicien bi ñu wax Ahmed Danso. moo nekk woon Serigne Cheikh mu naa mu ne ko hmm. adduna si benn démocratie la fi gis mooy dee hmm. mu ne ko dee doo ngay démocratie hmm. <laughs> ndax mag ñi dañ koy def gone yi góor ñi jigéen ñi sëriñ si taalibe yi politiciens yi ñëpp dee moom day maasale rek bu duggee ci kër gii bu jógee dem ci kër gële mm-hmm. bu jógee ci kër gële bu duggee dem ci kër gii mm-hmm. barki dee ba mbaay la dugg kër ñoom Tanor Dieng mm-hmm. wallaay jóge fa ñëw dugg kër Ahmed Danso wallaay wallaay oustaz ñu war cee mën a jàngi lu bari daal la cee mën a jàngi lu bari waaw ndax kilifa gu mag goo xam ne foo jógee motaari dar la mm. nga jékki-jékki motaari dar la dar bu mujj mm. Mm. ñu tëral la tiim la def oman waxoon naa la keroog ba ba ñu génnee ñaari néew ya mhm. sëñ Abdul Xaadir génn ne ku ciy njuga ku ciy njuga <laughs> hmm. njuga muy lu daw yaram waaw daw yaram lool ñëpp xam wallaay ndeysaan yar na ko waaw yal na yàlla woyfal suuf ci ko am amin koy rëcc rëccam amin amin waaw waaw te itam mu dénkaari woon nag ne ndar gee nga xam ne hmm. falaa amee nangam ak nangam sama sañoon fu lay tëddi hmm. ay bokkam delloo ko fa tëral ko fa ndànk est-ce que waaw waaw est-ce que ñiy wutuk pal oustaz wala ñi falu ba noppi lan lañuy ñuy jàngate ci loolu liñ ci jànge mooy hmm. suñ bàkkee hmm. wutuk pal bu mu la jaa tax jaay sa ngor bu mu la tax a jaay sa diin hmm. bu tax a yàq sa bokk loolu lañ ciy jànge ndax falu folli koy ñëw yu uti waaw ngoog tuuti ak tanzio rek la rek ñaar yu dong la mhm. jërëjëf tey am na solo oustaz jërëjëf mu nekk njàngat mu xóot moo xamante ne da ciy am ndax ni nga ko waxee euh, Ousmane Tanor Dieng noonu naka mhm. noonu Amath soxo ñoom ñëpp ñu teg leen ci kees toog tiim leen def ñoom ay seede rek askan wi itam di dégg nga xam ne ku falu ku nekk ak lu mën di doon te yor alali askan wi bis boobu mën naa am ñu lay waxal nag nit ñi de naan dëgg la wala ñu naan dañuy maslaa rek waaw direct waaw <laughs> ñaar yooyu rek ci nekk am na solo jërëjëf yal na yàlla jéggal ko te yërëm ko fay ko bépp coono boo xam ne doon na ko sonn ndaxum réewam ak taxawaayam ci askanam euh, jërëjëf oustaz ñu jaajëfal la bu baax xam naa daal di ñëw nag rek ci lenn ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi yónnee ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr daal ñu ko def tabarakallahu kon xam naa ñaari minute wala benn simil rek ñu jël si ñoom ñaar incha allah. xaj Mbacke tafaddal mashkuran jërëjëf Oustaz wa bég lool ci noonu nga xamante ne moom la mbokk yi di ànde ak ñun jotaay bi eh, di la ci jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bind ci albidaayatu arobas yahoo point fr ñu ngi ànd ak ñoom ki ci jiitu tey te ñu indi ab laajam mi ngi tudd xaadim jaase sëñ xaadim eh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nee na ginnaaw bi mu nuyoo mi ngi laaj kan moo war a génnee asaka ak nan lañ koy génnee bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lana illaa maa allamtana innaka anta al alimul hakim mbàkke ki war a génne azaka mooy ki nga xam ne li muy liggéey doy na ko bu ëpp ay soxlaam muy denc dara par weer ba mu amee fukki weer ak ñaar mu dem seeti la muy denc la muy denc mën a jënd quatre-vingt-cinq grammes or kook la asaka war su boobaa day laaj quatre-vingt-cinq grammes or lu muy jar ñu ne ko or un nangam lay jar or deux nangam lay jar or trois nangam lay jar mu boole un ak deux ak trois ba noppi diviser ko par trois lam ko jox mu jàppee ko or diviser euh, multiplier ko faa quatre-vingt-cinq bu dencee lu toll noonu asaka na ko noonu la koy génnee boo ko fekkee xam na alfuqara wal masaakin wa nangam wa nangam wa nangam mu jox leen ko. Mhm. bu fekkee xamu ko mu yët ko kilifaam gu leen xam. mbaa kum jàpp ne ku jubla te maandu. mu jox ko ne ko nii asaka la te génn ci. tarkal la mhm. loolu am na solo jërëjëf oustaz euh, kon asaka dafa am jamono juñ ko war a génnee ndax période bii daa mel ne dafa nekk jamono yu génnee asaka waaw jullit day ñaar dañu bëgg mhm. mu dàkk tamxarit wala koor ñaar yi daal. Hmm. moom mooy li gën ci nee nañu génn asaka. Hmm. tam xarit. wala koor wala koor. Hmm. bu ko bu mu ko ci génn rek baax na. d'accord waaw est-ce que te tam xarit soreetul moom. te tam xarit soreetul moom xam naa fii fan yu néew. ñu dugg ci weeru muharram. te muharram xasee dugg rek mooy tam xarit dugg na. tabarkàlla kon de yaa ngi ci waajtaayu asura waaw bi nga ne muharram ak tam la ma ko fàttali waaw maa ngi ci waajtaayu asura waaw maa ngi abbu baasa ki tib waaw waaw ak ki séesa ki est-ce que nox ak yoo koy doxal moom it day jotaay bu am am solo ci réew mi am solo lool ci daawa bi lay saa dëgg la euh, naa lu mu gàtt gàtt lu man ñaari junni nit wala ñett danañ fa teew waaw daanañ daanañ fa teew te mm-hmm. at mu mm-hmm. ñu gis ne ëpp na fa mm-hmm. ñoo ngi ciy séentuwaat kon ñëpp ca teere Kastoor te daa mel ne amoo sponsor amoo dara waaw <laughs> comme ni gars yi naan diwa ma sponsorisé kan moo la sponsorisé asma man te sa te sa budget na ñaata euh, trois millions cinq cent laa ilaaha waaw trois millions cinq cent yoo xam ne danga koy génnee ñi baas tant dégg sees nit ñi ñëw toog déglu waxtaan dem ñibbi génnee gum naa benn <laughs> àndataan naa def ko avance yi tas ko ci avance yi <laughs> yow da xam naa yaa ngi donc yaa ngi dem di kete ka dimbalee ji waaye <laughs> ku la dimbali nga jël lii kenn mosu koo gis réew mi mu koy xanaa feebar yow wuute rek waaye daanaka wér amatu dafa am benn picc waaw dafa mar di jooy waaw xalaas morom ji ñëw di naan ci eh. rongoñ yi waaw <laughs> seetal loolu kii mar bay jooy kii ñëw di naan ci rongoñ yi ah oustaz Gueye bu samdee bu noppee ci lii ak jàmm yal ñu Sénégal yi wuy ba nga réglé ko waaye faaw ma jublu ci say mbir yow it ah lii kenn mosu koo gis <laughs> jërëjëf <laughs> ah masha Allah yal nañu ko fekkee jàmm amiin te wees borom bi defal la ci ndam yu kawe yu mel na yënga ci daan barkalla ndeysaan ci ndokkeel nag oustaz Ahmed Dame xam ne noog moom ma ko bokk dëgg la loolu am minul waaw moom sa copain la n'est-ce pas eh, mënu fee weesu. ndeysaan daal am na solo tubaarkàlla rek. jërëjëf jërëjëf <laughs> oustaz tubaarkàlla loolu baax na loolu yàlla na ngeen ko gën a mën. am naa sama benn sama turandoo. Mhm. Paa Alasi. waaw. day mu saa bu ma nee mbàkk asalaamaaleykum rek mu ne ma anam sa Ahmed Dame. ndeysaan loolu la muy njëkk a laaj. dëgg xam na ni ngeen demee. waaw xam na ni ngeen demee. wallaay des daal cee teg na yi ñu ci teg ndeysaan. est-ce que xanaa nit daa mënta ñàkkub xarit wala. waaw mënu koo ñàkk di. Mm. xaru guro. Mm. foo gis rek am na beneen xaru mu àndaloon. Mm. bëri la ko nag moo kiiwut waaye moom munti ñàkkub xarit mm-hmm. koo xam ne looy dugg na ko loo ci xam booy looy dugg na ko loo ci xam mm-hmm. munta ñàkk mm-hmm. waaw surtout waaw am na solo <laughs> am na solo jërëjëf jërëjëf mbokk moomu di sëñ xaadim ci laajam boobu jëm ci wàllu asaka hmm. eh, mbokk mi ci topp ginnaaw bi mu nuyoo nee na mi ngi lay siyaare eh, mi ngi tudd Mamadou Njool hmm. eh, moom ak yaayam soxna Xadi Wàdd Kaolack lañ dëkk hmm. ca Saara jàmm gën nee na bëgg nga nga firil ko aaya yene ci surat alxiyaama di tolloog aaya vingt-six ba aaya trente et du sore fi suñu borom subhaanahu wa di waxee naan kalla ida balaxati taraaxi waxii la man raaq wa zanna annahu lfiraaq waltafati saaqu bi saaq wallaay ndeysaan sunu borom di wax foofu baada audu bu doom aadama tollee ci di génn àdduna allahu akbar ba ruuxam toll ci taraaqi mm-hmm. a taraaqi mooy mooy baat yi la kolof di wax mooy siiti baat yi mm. nga gis waa ji di yuqeel mm-hmm. gi dem ak dikk mu koy xëcc du mën a dem mm-hmm. ay bokkam ne man raaq mm-hmm. fu ngeen xam ku mën a faj mbaa ku mën a mocc mm-hmm. waa ji wa danna anul moom mu wóor ko ne tey lee tàqalikoo këram mm-hmm. tàqalikook lalam tàqalikook otom bi tàqalikook jabaram ji tàqalikook doomam yi waaw al wal tafati saaqu bi saaq yeel ya te yele tegaloo mooy waa ji dootul yëkkatil boppam ay yelam mhm. dañ ko yëkkati teg ca bee mhm. mu ne ilaa rabbika yawma ma masaaq fañ ko om ma jëme bis boobu hmm. jërul laaj mooy ilaa rabbihi mhm. waaw tey wa shukran ci laajum ba am solo macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu hmm, tolluwaay boobu yéeme na lool yéeme na lool nga xam ne ku fa toll maanaam ñi nekk ak yow lan ñi nekk ak moom lan lañ war a def jërëjëf ñi nekk ak moom li war a def mooy yemale ay tànkam fexe ba tànk ya jublu xibla bu daan julli fa muy jublu fab ay loxoom teg ci dënnam te tudd laa ilaha illallah boo ko waxee rek ñépp na cell allah waaw mhm. bu ko waxee ñépp na cell ñëpp na cell bañatee wax dara waaw mhm. moo tax ñu bëgg nit di wax lu bari laa ilaha illallah mhm. baraw ci péncum laayin baa ñu mel ni ñoom. ndeysaan <laughs> ndeysaan. waaw. la laa rek. Mhm. waaw ba mel ni péncum laayin. Mhm. su ko defee su boobaa boo ñu wax laa ilaaha illa mën naa am mu yomb ko mu wax ko. Mhm. bu ko waxee ñëpp ne cell. ndax alayhi salaatu salaam mi yàlla yónni woon moo ne baat boobu kum doon sa baat bu mujj sa affaire baax na fële allahu akbar ku mujjee wax laa ilaaha illallah sa affaire baax sa affaire baax na fële allahu akbar léegi nag kon suñuy wax di wax di wax ba mu wax ko. Hmm. ñëpp na selaw. Hmm. bu kenn waxati. tey dégg naa kenn du ko wax waxal. waxal laa ilaaha illallaah. waaw da nga koy wax rek muy dégg. da koy wax rek muy dégg. Hmm. ndax waxal bu ne duma ko wax. ak muy tukki waaw màndarga mu baaxul lay doon. waaw moo tax duñu wax waxal dañu wax rek. te ab jullit ñaare tollu foofu di dégg baat bi. waaw xelam dana dem ci. la yunt boo xoon dëgg la. bu nga waxee rek affaire am baax. wallaahi. allahu akbar laa ilaha illallah waaw man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah hmm. akbar laa ilaha illallah waaw masha allah moo tax sunu borom hmm. mbàkke sunu borom xamul lan lañ ko war a wax sax waaw xanaa jëla jëlaalu te génn ci waaw daa mel ne àjjana daal ci ni mu koy waxee nii waaw ah wax na ko wax ko rek daal di dugg fa amma man aata hmm. wattaqa wa saddaqa bil usna waaw fa sunu yasiruhu lil <laughs> mu wax dugg aljanna moo gën a yomb dugg sawara hmm. ndax fee fa sanuyasiru lil usra la wax waaw danañ ko yombalal li jafe waaw fii mu ne danañ ko yombalal li yomb jeex na yombalal ko li yomb nag mooy aljanna dëgg la est-ce que waaw aljanna nit nag da gis koo xam ne gis nañu bàkke waaw <laughs> day siise nit man affaire bi nag dafa ma métti waaw problème bi ci penc mi yëpp nag daa mel looloo ko indi looloo ko indi waaw siis gi siis gi ñu bëgg a siisante àjjana daal àjjana dafa xat wala ñun ñëpp dañ faa xatut oustaz ñëpp xaj xam nga al sawara lañ xam ne dana fees. waaw mais aljana du fees. Hmm. ndeysaan. waaw ah, ñëpp ca mën a am place. wax dëgg yàlla ku ne war nga koo yéene sa moroom de. ñëpp. waaye ñun kuréel sàngam ñëw fa jëm kuréel sàngam baaxuñu ñoom duñ ñëw rek. te nga dégg wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan. jannataan deux. jannataan maanaam. ñaari aljanna. nga dem aljanna am fa ñaari aljanna. Hmm. waaw. Hmm. genn aljanna ga nekk ca banlieue ba peut-être. <laughs> gi nekk ci bi. boo bëggee doxantu dem ci gële. waaw. <laughs> waaye suñ Mbakke. dafa bëgg a Ibrahima Mbaye. Mbeng la bëgg a siise aljanna. waaw bi dugg. comme yow mën nga caa am mu am ca. ay mbokkam am ca ñu am ca. Mm-hmm. waay waay. ndeysaan. parce que mas ngaa gis ku siis ci ndox. déedéet ndoxum kefe kefe. Hmm. kenn siisu ci kenn. kenn dañoo xam ne doy na. <laughs> daa naturel moo tax. dara da cee raxut. jant bi nag puusal ma xool. déedéet moom it amu ci. jaama wallaay ndeysaan. tubarkalla wallaay tubarkalla am na ñëpp am am na solo oustaz xanaa looloo tax na balaa gaa yee dugg suñu borom opéré leen ba siisante kooku dañ. am na ci ñooñ. am na ci ñooñ ah. am na ci ñooñ. Ah. Hmm. ni nekk ci àdduna. Hmm. il faut ñu yóbbu leen hôpital. Hmm. opéré leen. génne xel la. xill mooy. xill yooyu mooy mooy soxor. fees googu. Hmm. mbañ gu mbañ gu fees googu. waaw nga xam ne booy wax ak nit ki sax da wax façon boo xam ne. dëgg la da ngay defe ne boo waxee wax ju sérieux sax. Hmm. du baax da koy da koy soxoral. <laughs> moo tax bu demee wan na sax naa maa waaw waaw day yàq noos gi kooku buñ ko réglewul moom <laughs> day yàq noosu àjjana gépp day yàq noosu àjjana <laughs> macha allah am na solo lool tey itam oustaz li ci neex mooy léeg-léeg di wax nit ñi yu yomb yu neex yi c'est-à-dire mën naa bañ yomb waaye wane ne mbir mi jëfewul yàlla bindul nit ñi ngir lakk leen ubbi na bunt yu baree bari yu yomb yoo xam ne ñu fa jaar bokk walaay ndeysaan ku góorgóorlu bokk ku waaw ku góorgóorlu bokk waaw hmm. ay defe ne kenn du dem hmm, hmm. Mm. ba aljanna fi nekk nii nga bëgg fa dugal kañ yeeg muus yi <laughs> yàlla bindoo dugg aljanna pour kañ yeeg muus yi dëgg la de nit ñee bu ñu ko bàyyee nag da nga gis ko dugg bàyyi ñu bari ci biti te waaye du ñu ko bàyyee liggéey yonent bi yëpp mm. mm. moo doon ñu dugg aljanna ndeysaan allahu akbar te moo tax bi fi bëgg a jógee mu tiit mm-hmm. suñu borom ne ko jarul tiit mm-hmm. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mm-hmm. bul tiit demal rek bàyyi ma ak ñoom yowmal xiyaam dama la jox nga duye li fekk waxoo doy na du ma bàyyi mhm. te su ma la ko waxaat koo gëm ndax mhm. alam yajidka yatiiman fa aawaa mhm. mu ne ko aha kay wajadaka daalan fa hadaa mu ne ko aha kay wajadaka aayilan mu ne ko aha kay kon doxal nu dem jeex na macha allah jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk mi ci laajam bu am solo boobu mbokk mi ci topp mooy Mouhamadou Sock ñu ngi koy jaajëful bu baax baax te di ko nuyu. Mhm. nee na daf doon laaj euh, oustaz lu yàlla wax ci kudul julli. waaw li yàlla wax ci kudul julli xanaa soññu ko ne del julli rek. Mhm. del julli. Mhm. ndax ki nga xam ne day faat waxtu. walla mu jëkki waxtu wa génn mu door a julli sax am na lu ko yàlla gàll. ci faat geeg yeexe gi. ci faat geeg yeexe gi. fa waylun lil musallin. allazina an salaatihim saahuun. ndeysaan est kon nag ñun ñëpp nañ ci góorgóorlu rek. Mhm. te di ca nekk. macha allah shukran jërëjëf loolu fàttali ma sax benn actualité bu fi jaaroon te fekku la fi muy mhm. fële ca pharmacie ba. Mhm. ak eh, ñàkk julli gañ fa doon wax ak ñi nga xamante ne léeg-léeg bëgg a jëfandiku bala bëgg a jooxe seen diine day indi ay jafe-jafe ci seen diggante ak seen liggéeyukaay. loolu loo ciy wax. waaw man de ba ma ko déggee dama tiit. Mbàkke. ba ma ko déggee dama tiit. xam nga accident yi jeexoon na. am de mhm. wala ba wàññikoon waaw dëgg la jékki taxar naa siwaat mhm. yàlla ne na xanaa seetluwu leen at mu jot ma nattu leen ñaari yoon waaw <laughs> wallaay alam taraw annahum mhm. yuftanuuna fi kulli aamin marratayni aw marratayni <laughs> waaw waaw ne ci Sénégal gii hmm. quatre-vingt-quinze pour cent yi wala dix-sept pour cent yi di ay jullit hmm. nga ne sama barab bii kenn du fi julli. Hmm. li ngay def xamuloo ko. allahu akbar. Hmm. Euh, xam nga kañ laay ñëw rajo Sud FM. Hmm. kañ nga fi ñëw le 22 juillet. 1999. seetlu ma fu mu duggee rajo bi te aw ma jàpp. góor lu tax loolu. daa bokk ci contrat bi wala yaa ko bëgg a doxale noonu. <laughs> parce que. julli ak jàpp. Hmm. gàllaaj fa la yem. Hmm. waaw est-ce que nga xam ne barabu liggéeyukaay bi njàpp mañ fay def ak julli ga ñu fay def daa baax ci liggéeyukaay bi. waaw. seetal loolu. màkk gi nga xam ne. Hmm. bu ñu ne allah akbar tëj barab yi ak cantine ak ñoom seen yooyu. waaw ah, barkeel de dox na de. waaw. Ah, c'est bon. nga gis ni ñuy vague dem ci euh, euh, kaaba ga. vague ñibbiwaat. yow nga ne ci réew mi yor fi bu liggéey naan fii kenn du fi jullee. Hmm. ah loolu loolu dara gën koo garaaw. Hmm. waxuma la pinc moo xam ne. Hmm. danga am maam mu julli ca ndox ma. ndax bañ a faat waxtu. nga am maam mu dund juróom-ñaar fukki at mbaa ko jege. benn yoon la ko kàbbarub armal masaraw ci seeti masala nga ne ci réew moomee waaw waroo ko woon a ñeme waru waroo ko woon ñeme ma koy xalaat wax dëgg yàlla loolu buñ koy commentaire ñëpp a waroon tiit ci réew mi ne lii moom kenn ñemewu ko fee wax loolu nag mën nañu jur lu ne gis nga suñu yol suñu yalwaan yi di këpp hmm. du xam nga yalwaan mu këpp waaw mooy lan oustaz di wër ci kër yi di wër ci kër yi di wër ci kër gi ba sa ndab di bëgg a fees <laughs> mu këpp mu këpp suñu yelwaan yi day këpp léeg-léeg ah bi ñuy final fii ñoog waaw ndeysaan bërki démb bërki démb waaw ñook ñookan la Algérie ah. waaw ñook ñook Algérie waaw waaw bu dee ca football ba bu dee basket bi ñoo ngi Nigeria. jeex na. <laughs> yëpp yalwaan yi daa mujj këpp. 2000 2000 ca la tàmbalee këpp. waaw 2002. waaw ndeysaan ca Japon. waaw li yalwaan mi tàmbalee këpp. waaw daa njëkk këppoo fii ci Mali eh, ci finalu coupe d'Afrique. jeex na ñu dem fële mu këpp waat. yi yi def sunu borom yooyooy këppoo yalwaan yi. <laughs> loolu rek la de. nga xam da nga koo misaale ci wàllu sax sport bi waaye même buñ jëloon ci yi ñuy wut.